حمدا لمنزلتنا والداء ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزلتنا يدفع به عن البلاء ثم على من حيث مستثمرت يبرأ بلا رد وفاز بالخلاء محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام jëfandikoo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 ko defee yàlla mën na cee musal asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah yi fi daje maa ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare di leen sant kàddu yoo xam ne yii maa ngi ko bëgg yëkkati ngir ndigal jóge ci Abdul Ahad mom sëñ Cheikh Gaynde Fatma jóge ci sëñ Basiiru yëpp nag daje ci sëñ bi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadoul mau moo tax may sànni yi ma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 koo xam ne lu mu la digal kat sa njariñ la lu mu digle war nga caa nekk te moo ne ak yomb fab aw morso def sa kanam rek ak raxasu wax dëgg nit wut na lu wax ba tàyyi ci lu gën a jafe loolu kon nag nun ñëpp nan maase ci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 ba nga xam ne tante yi ñu fi yi ñu fiy def sax niñ ci daan def bu njëkk di jalaw jalaw yi ak di xëccoo buñ ko def ren dama bëgg buntu tante bu ko fay ñëw nga ànd ak dal ak tey ne teg ak sa sa sa masque yi nga xam ne moom la moom nga moom nga takk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 ndax ndigal la lu bàyyi ko ci serigne Touba suñ euh jaar ci mbolam ko xamne mbolo mbooloo ngi ci ginnaw motax mu ci billahi mina shaitanir rajim ndax jangoro ji daj na àdduna bu ñepp masé won di takki masque ak di sore baña dajé daje te lépp ndigalul serigne Muntaxa bañ ko yëkëté mom mo leen ci njëkk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 jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yéen bokk jullit yi yéen bokk taalib yi njabootu Sëriñ Tuubaa njabootu Maam Cheikh Ibra Fall. si mun taxaa li mu digle mooy dafa bëgg màggal Sëriñ Tuubaa gii ni ñëw nu waajal ko. bu ñu màggal saal na fas yéene ñëw te indaale li ñuy wax masque yi ak saabu yi ak sel yi sàmmonteeg moom baax ku ñëw na ko indaale ñu ñëw nan nanu ci fekk suñu baa ngi koy digal nag comme jullit ne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 Selma. yor ndox moomu ñuy wax Selba. sel sel moom daal li ñu bëgg a wax xam ngeen ko. waaw daal li ñu bëgg a wax xam ngeen ko mooy lii rek. waaw li mu ci jublu wax mooy kii. li sëñ bi jund. lépp lépp. mokkal nañ ko mu daal mokkal nañ ko bi ko laataa wax. yéen mbokki yi aju ci ngeen xam ngeen ko muy li nga bi ci muy mu def ko ñu bëgg nag noonu mu ko defee te santaanee ko ni képp ko aju ci sëñ Ibra Faati wala nga aju ci daru muuti na nga sax ci loolu na ngeen yor masque yi na ngeen di raxasoo sel bi na ngeen di wattandi konte te loolu lépp njariñul euh, sunu njariña ah, njariñul taalibe yi te it gis ngeen bi mu bi mu ko daataan digal da koo jëfee moom ci boppam di nag bo gisé mu digal lëf jëfé ko na nga xamné sa jëriñu bop su fekk ne ko digal te bañ ko jëfé waaw kay bu ko regee nga ne njëriñ ma nga ci waye amu ci ben jëriñ suñu jëriñ rek la bëgg. mbokki talibé yi mbokki jullit yi bolem ñi dëkke Touba ak ci biir réew mi fuñ fi mëna a nekk maa ngi leen di nuyu ci turu Serigne Moustapha moom Serigne Massamba.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 te loolu mooy li am solo fa tabaarakallaahu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi nuyu bokki taalibe yi yëpp taalibe di nuyu julit julit yëpp man Serigne Sidi jenn mom Serigne nar jenn taalibe Serigne nar jenn Serigne muntaha dafa joxe ndigal képp ku dib taalibe tey si na nga takk masque te fonk ko kon bépp taalibe magal si na nga wut masque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 ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الأنام